<laughs> affaire naafeq la. mais di defal ay ay tafambur ay koñot. wallaahi bu ka mooy mais am na yoon yoo xam sax. <laughs> non. bu Siteu moo xorom de bu Siteu moo <laughs> bi mu dem magum magum 67 mu tawaay mu tawaay numéro nga xam ne ñoom tubaab bu joor la doon àndal. affaire guraar la mburu démb ngelawal loxo bee ko daan ngelawal bi mu xam ne mu xam ne supporter yi jeunesse bi dañuy dal ci kaw mu ne xaaral ma profité dal ci kaw patriote yi quoi yow kay santal yàlla bala patriote yi kañatul yow buñ la kañataloon nag ñu delloo suñu xaalis di <laughs> yow gars yi jeunesse bi ba léegi coup la daanee la yor coup bi <laughs> mënoo génne ab télé benn waar mënoo jee dem ba génnee ne buusite kuubee ko daaneel kenn dóoru ko mu daal ngelalee ko ëf daal c'est la première fois magum sa magum soixante-sept ans tubaab géej ñoom tubaabu joor la doon àndal yow waxal ak sa supporter jeunesse bi da nga xam ne jeunesse bi dañuy dal sa kaw nga ne xaaral ma dal ci kaw patriote yi mo yow bu la kañatoon yi da ngay daje nanguwaat sunu kañat <laughs> parce que sa coup bi coup Moustapha Guèye bi ku am fuñ ko doore na ma ko na ma ko envoyé waaye ku am fuñ ko doore <laughs> bu Siteu ku am fuñ ko doore na ma ko envoyé doo gis <laughs>